asalaamaaleykum mbokki Sénégal euh, man la madame Maimouna Dièye présidente du mouvement national des femmes de PASTEF maire de la commune de Patte euh, damay def euh, live bi pour wax ci lenn mooy actuellement waxtu bi may wax ak yéen bu biir kër Ousmane Sonko njabootam a nga fa ci jàqare ci jaaxle parce que dañoo am ay éléments yu nekk foofu ay FDS lañu xam naa bu dul bi parce que c'est important mooy fi mu nekk nii téye nañ la président Ousmane Sonko mais li gën a doy ñu ngi jaar ci ginnaawam biir këram pour lan kenn xamul jëlee nañu ñu nekkoon foofu yëpp ci buntu kër gi dàq nañ leen kenn xamul intention bu ñu am mais dafa baax sénégalais yi xam li xew Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais kon waruñu ko traiter d'une certaine manière Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais il a des droits et droits yooyu mu am tey jii lépp yëkkati nañ ko. Euh, pour pour pour dal ci kawam démb dégg ngeen chef dal d'inculpation yi ñu teg ci kawam ci loo xamante ne teguwul ci yoon kon nag tey jii bu ñu demee ba nga xamante ne mi ngi ci biir kaaf bi au niveau du tribunal ñu ne nag dañ koy fekk biir këram fekk njabootam ci biir këram mais finalement on se pose des questions qu'est-ce qui se passe dans sa pays waaye yéen lii lan la lii lan la lii ëpp na donc il faut que sénégalais yëpp xam lan la na ko ñëpp déggandoo na ko ñëpp xamandoo ne le président Ousmane Sonko actuellement mi ngi subir injustice boo xam ni kenn xamul nu mu tudd man nag dawuma laqatuuma maa ngi nii sama biir kër laa toog ku may wut na ma fa fekk waaye li ma war a wax dinaa ko wax te nag sénégalais yi seetaan baa ngi bëgg a ëpp seetaan baa ngi bëgg a ëpp ah mais lii lan la fan la ñu nekk dans quel pays sommes-nous on est Sénégal boo xamante ni benn nit moo fi nekk di def lu ko neex droit bi Ousmane Sonko a les mêmes droits que tous les Sénégalais jour férié lañ ko yëkkati jour férié la dugg këram jour samedi la ñu jël processus bi yépp tàmbali ko au niveau du tribunal pour inculper ko tàmbali nañu audition nee nañu altine lañu lañu la ñuy dem ci li nga xamante ne tey jii suñ ko mënee tuddee une affaire elle n'existe pas parce que yanu nañ ko yóbbu alors qu'il y a une affaire qui était déjà là donc am nañu nu ñu taxawee ne ñoom dañ ko bëgg jël tey jii euh, euh, euh, collé ko ay motif biñ koy yóbbu lu ñu wax vol te vol xanaa bu amee nit dafay def koy day porte plainte ñëw ne diw mi kat dafa sàcc sama téléphone nit kooku ndekete c'est pas n'importe qui jigéen la mais gendarme la waaw gendarme day sol tenue gendarme day présenter boppam gendarme dafa am nu mu war a taxawee leneen lu ci topp mooy dañu wëlbatiku ne daf ko violenté waaye xanaa nit boo koy violenté danga koy dàq danga koy dab waaye moom dafa taxaw ni otoom dafa paan ku sa oto paan di nga tal filmer mu taxaw di ko filmer fekk ko ba jege ko di ko filmer filmer boobu mu ko filmer su ko jegewul woon Ousmane Sonko du fokkati ci am mais Ousmane Sonko xanaa du nit Ousmane ko nit la sénégalais la ñu nekk ci réew moo xamante ni les gens font ce qu'ils veulent au nom de quoi abus de pouvoir bi moo ëpp y a un abus de pouvoir dans ce pays et il faut que tout le monde le sache il faut que tout le monde le voie à l'opinion internationale nous disons que le président Ousmane Sonko est en train de souffrir le martyre personne ne sait dans quelles conditions il est gardé ses avocats ont parlé rien n'a été respecté dans le processus de droit mais où est-ce qu'on est dans ce pays man bugguma woon wax mais je suis obligé de parler maintenant te lu ma ci góobee gar ko ah? lu ma ci góobee gar ko lu ëpp tuuru mais léegi dinañu dem ba finalement sénégalais benn sénégalais du sañ a wax benn sénégalais du sañ a taxaw ni damay politique benn sénégalais du sañ a taxaw ni dama bëgg a changer Sénégal le crime de Ousmane Sonko c'est de dire que je veux changer les pays dans ce dans les choses dans ce pays et les sénégalais épris de justice pourquoi vous laissez faire lu ëpp nag tuuru lu ëpp c'est pas quelque chose qu'on va laisser faire xam leen actuellement les éléments de la BIP ou de la GIGN sont chez le président Ousmane Sonko prêts à forcer sa porte sa famille est dans tous ses états ils sont apeurés c'est la panique les gens ne savent pas quoi faire ils ont balayé toute la ruelle ils ont demandé à tous les gens qui étaient de dégager. À quelle fin? Si c'est pour une perquisition, on saura que c'est une perquisition avec les documents qu'il faut à des heures normales, mais pas un dimanche à 20h59. Oh, à l'instant où je vous parle, ils sont là-bas. Mais on est où? Où est-ce qu'on est dans ce pays? lu ëpp nag tuuru lu ci jublu waaye nañu xam ne les Sénégalais les regardent et les tiendront responsables man nag li may wax démb moom laay waxaat tey ci Sall vous êtes le président de la République du Sénégal dellul ginnaaw balaa muy weesu Macky Sall dellul ginnaaw balaa muy weesu parce que ce qui en train de se passer boo ci bokkeeg boo ci bokkul te dama gën ni da ci bokk na wax ñi nga xamante ni yaa leen yilif ñu dellu ginnaaw xaw ma ban intérêt lañ ci am mais Ousmane Sonko mii ñu bëgg jël faagaagal ko billahi wal kitaab bi buñ ko defee doo du du loo xamante ne dinañ ko mën a defaraat Ousmane Sonko c'est un Sénégalais man mii ànd ak moom je suis une Sénégalaise nous sommes devenus des étrangers dans notre pays pourquoi fan lañ ko teg mais lii ëpp en tout cas ce qui est sûr nous Pastef xamuñu intention bi ngeen am ci ñun je parle à mon nom xamuñu lan ngeen na mais on sera là on survivra on se battra on gagnera les élections de 2024 parce que Ousmane Sonko kenn mënu ko teree nekk candidat il sera le candidat des Sénégalais il sera le candidat des patriotes et il va gagner parce que le peuple l'a déjà choisi su dee loolu nag moo leen tiital continuez et vous allez voir ce que ça va donner Diallo rek moo fi nekk et c'est Dieu qui est aux commandes lu ngeen mën a fexe da ngeen xam ne ki ngeen di digaaleel yàlla moo ko sàkk moo leen sàkk bésu Ashura mu woor wooram comme tout sénégalais ngeen ñëw yëkkati ko yóbbu ko brutaliser ko def ko li ngeen ko def c'est pas normal c'est pas normal il ne le mérite pas et aucun sénégalais ne mérite ce traitement ay jabaram ñu ngi paniqué ay doomam ñu ngi paniqué ñun ñii ñu ngi jaaxle man démb ba tey dama feebar pour lan xanaa ñun dëkkatuñu Sénégal man gànjool gi ma jóge ñëw ba Dakar fekk fi yaayu lébu kenn ëppalewu ma fi kenn ëppalewu ma fi je suis sénégalaise comme tout le monde et tous les membres de Pastef sont des sénégalais pourquoi ñu bëgg ñu isoler traiter ñu de cette manière on ne le mérite pas on ne mérite pas ça jàpp ay jigéen di leen toroxal en 2021 moi-même j'étais emprisonnée dans des conditions difficiles ñu jël ñu teg ñu ci karo yi pendant une période de froid di ñu maltraité j'étais malade il ne m'empêchait de prendre mes médicaments tey jii ñu taxaw bëgg defaat lii on ne va pas se laisser faire on ne se découragera jamais et ça vous devez le comprendre une bonne fois pour tout da ngeen daan door muy dal billahi bii mooy bi leen di yóbbaale Macky Sall partira mais Macky Sall n'amènera pas Ousmane Sonko avec lui dans sa chute il n'amènera pas Ousmane Sonko. Moi, je pense que nous devons revenir à la raison. Monsieur le Président Macky Sall, moi, je vous le demande, Maïmouna Diye, je vous demande de revenir à la raison et de régler ce qui se passe chez vous. C'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que Ousmane Sonko soit là, existe, se positionne, soit candidat et gagne les élections de 2024. C'est sûr, on le sait. Mais mënu leen ci dara. mënu leen ci dara et ça moi je vous le dis j'avais l'intention de parler calmement mais là je suis outrée parce que je viens de parler à son épouse ils sont dans un état mais on ne peut même pas l'imaginer au nom de quoi où est la République du Sénégal la République a fui et a pris la poudre d'escampette la République est morte nous sommes en train de bafouer tout ce qui est droit nous sommes en train de bafouer tout ce qui est valeur cardinale dans ce pays mais lu ëpp tuuru lii ëpp na lii ëpp na waay je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi dire sénégalais yi xam leen ni bi BIP wala GIGN ña nga kër Ousmane Sonko di bëgg daaj muntu bi dugg fa na ko ñëpp déggandoo bu ñu paree nañ ma jël si je suis prête y quoi y que chez Ousmane Sonko les les les éléments de la BIP ou de la GIGN sont là ba pour entrer en infraction dans cette maison parce que même bu man bañuma ko ku def perquisition mais même bu ñuy def perquisition nañu indi seeni kayit nañu indi seeni kayit nañ ko def ci heure normale mais férié lañ ko arrêté samedi lañ ko lañ ko lañ ko entendre ne dañ koy entendrat encore dimanche dañ koy entendre encore lundi. amul mel ni mu amul avocat mel ni amul benn droit ci lan téléphone bu ñu nangu ci kenn nañ leen waxante dëgg ko lii finalement c'est de la provocation c'était bien prémédité et vous croyez que ça allait marcher ça na ça ne te billahi yàlla ngi leen di seetaan yàlla mu ngi leen di seetaan seeni malaaka ñu ngi ci seeni mbagg tegu te lu ngeen def dañ koy bind Ousmane Sonko lii mënul ci moom dara su demee ba ni dafay def grève de la faim c'est parce que xolom dafa jeex pour quelqu'un qui croit en koo xam ni addunaam yëpp loo wax ñun bi ñuy def grève de la faim ci biir prison bi daf ma ni carrément may na faites pas ça parce que lii baaxul nga xam ne état bi mu war a toll kon metti na et vous croyez qu'on va laisser les choses continuer comme ça pourquoi parce que dañu ragal ay nit ragaluma Macky Sall ragaluma kenn ci ñoom yàlla rek laa ragal ragaluma kenn ci ñoom yàlla kese laa ragal te tey jii je suis prête à tout je serai aux côtés de mon président. Je considère que c'est lui le président de la République du Sénégal à partir de 2024. Je serai à ses côtés. duma mës a daw duma mës a daw bu ci sama bakkan bi rotee ma sante ko yàlla parce que ëllëg dinaa xam ni j'ai travaillé pour l'avenir de mon pays Ousmane Sonko accepte ce qu'il est en train de subir c'est parce que daf ko ko jaral jaral ma ko jaral képp kuy patriote si Ousmane Sonko est en train de subir c'est parce que dafa xam ni jeex na ba pare te Sénégal lu ëllëg lay liggéey te Sénégal lu ëllëg boobu c'est pour vous Sénégalais c'est pour vous la jeune sénégalaise c'est pour vous les femmes du Sénégal jàmm la bëgg ci réew mi bëgguñu ay mais ñi bëggul jàmm nañu wax ak ñoom yéen jigéenu senegal yéen jur seeni doom bëgg seen avenir yéen a jur seeni doom bëgg ñu tekki ëllëg Sénégal boobu lañ leen bëgg tabaxal Sénégal boobu lañu bëgg moo tax Ousmane Sonko di daj lii muy daj révolution bu ngeen gis rek jigéen a nga ca cat ba moo tax tey jii je me sens engagée demande aux femme sénégalaises de s'engager jigéen mooy société bu leen nangu yi wax leen ñu dégg leen bëgguñu lu dul jàmm ci réew mi bugguñu ay bugguñu xeex waaye nag ñi nga xam ni ñooy indi fitna bii jot nañu wax ak ñoom ah. jot nañu wax ak ñoom parce que kuy xeex ndax fayu du benn ak kiy xeex ndax bëgg dara vos intérêts sont en jeu il va de soi bu dul tey di suba seeni intérêt yooyu di ngeen ko ñàkk pour l' général parce que l' intérêt général prime sur vos intérêts vous te ku ci gis sa bopp rek yow laay waxal ku ci gis ku ci natt sa bopp rek yow laay waxal muy les hommes d'affaires muy ceux qui gravitent autour du président de la République qu'est-ce que vous voulez que ñu continuer mi di nekk ci ndóol xale yi di dee ci gaal gi les enfants barki démb encore on périt dans les eaux internationales est-ce que sori nañu sax pendant ce temps des gens sont là à se sucrer sur le du peuple fii Sénégal rongoo ñi baadoo la mooy siim cere buur mais loolu ngeen du jeex barki yonent bi dafay jeex billaahi wal kitaab bi dafay jeex parce que yàlla mooy maye ku bëgg da ngay liggéey mais làqu ci nguur làqu ci système di dund ci kaw askan wi Ousmane Sonko loolu lay xeex moo tax sénégalais yi bëgg ko moo tax sénégalais yi teg ko fi ñu ko teg et vous croyez qu'on va laisser les choses s'arrêter non fini Les choses vont changer dans ce pays. Ça passera ou ça cassera. Mais les choses vont changer dans ce pays. dañ leen ragal ñun ragaluñu leen ñun ragaluñu leen yàlla rek la ñu ragal te yàlla rek la ñuy waxal yàlla rek la ñuy waxal billaahi yàlla moo mën lépp lu ngeen teg yàlla moo ci mën dara su ngeen ma waree rey rey leen ma ma am ngërëmu yàlla Ousmane Sonko même chose il va continuer de sa battre on continuera tous à sa battre loolu laa bëggoon wax sénégalais yi ngeen déggee ko noonu il sont en train de forcer la porte chez le président Ousmane Sonko c'est révoltant loolu laa bëggoon ngeen dégg ko jërë ngeen jëf.